الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي سنت سني بروم سبحانه وتعالى di dajawaat ci am néegam di fas yéene jël benn bind ci ab téeréem doonte ne ni mi ngi am ci jamono joo xam ne ni it ba tey àdduna bi yépp tiis bi mu yónnee mi ngi wàcc ci ñun ñu ngi koy ñaan ci njëggalam ak yërmandeem yal na ko yàlla subhanahu wa taala teggi ci jàmm di ñaan it ko mbokk yi ñuy bañ di fàtte matukaay yi lu mel ne booy ñëw ci jàkka ji nga indi sa masque soo mënoon a indaale sujaade it loolu mooy la gën gel yi ci bunt bi ñu fàtt ñu bañ a fàtte di ko laal di wax mbokk yi ku ci mën a indi ay gelit nga bàyyi ko xel ndax biteel yi day gaaw a jeex lool gannaaw ba itamit ñu bañ a fàtte zikr yi yonent bi alayhi salaam jàngale te bokk na ci loolu nee na amul place booy dem ne a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq ba pare am lenn lu lay lor ca place boobee kon askar yi ngeen xamoon na ko jekk ci dugg jàkk ak génn jàkk yàlla waaye de leen ci boole ku dugg ci jàkk ji du wax loolu a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq soo demee ca marché ba noonu soo demee ca banque ba noonu foo mën a dem nga bañ a fàtte zikr yooyu ñu ngi tolloon ci ay fanweer ak ñaar ci fi suñu borom di waxe ne wa ankihul ayyaama minkum ci suuratu nuur incha allah su dee suñu mbokk Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu bind bu njëkk waaw بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم سبحانه وتعالى مني وأنكهوا الأيام منكم نجن فخي دوغل تيني غسي نيغا خمني نيوم نيوي سيلبتيري تيين ندون غور لنو ولا جيجين نيو mas nañoo sëy wala musuñu sëy loolu lépp ñu ngi dugg ci ayaama wa saalihiina min ibaadikum wa imaikum ak ña nga xam ne dañoo baax ca jaam yu góor ya ak jaam yu jigéen ya in yakunu fuqara su dee dañoo doon ñu ñàkk day yughnihimullahu min fadli dana leen woomalal yàlla ci ay ngëneelam wallahu waasiun alim sa borom yàlla aji yaala aji xam lépp la walyastaafifi alladina la yajiduuna nikaaha waaye ngalla waay nay fegu ñi nga xam ne amuñu ab sëy xatta yugniyahum xatta yugniyahum allahu min fadli baba yàlla subhanahu wa taala di leen woomalal ci ay ngëneelam wallazina yabtaguuna alkitab ñi nga xam ne ñooy sakku di bindante ak yéen ngir bëgg a gore mimma malakat aymanukum ca la nga xam ne moom na ko seeni loxo mi seeni jaam fa katibuhum in alimtum fihim xayra bindante leen ak ñoom su ngeen xamee ci ñoom aw yiw wa aatuhum min maalillahi allazi aataakum te ngeen jox leen ci alali yàlla ji nga xam ni yàlla moo leen ko jox wala tukrihu fatayaatikum alal bigaa ngalla way bu leen nekk di forcé seen jaam yi jigéen yi ci ak njaaloo in aradna tahassunan su dee dañoo bëgg ak fegu li tabtahu arada alxayaati dunya ngeen di sakku la nga xam ni moom mooy la ñuy gaaral ci àdduna ay alali àdduna kese wa man yukrihunna képp koo xam ne forcé na leen fa inna allaha min baadi ikrahihinna suñu borom yàlla gannaaw bañ leen forcé ghafurun rahimun ay lahunna suñu borom yàlla dañ leen jéggal yërëm leen mooy jaam yooyu ñu forcé mi ngi noonu mbokk li mooy suratu nuur comme ni ñu leen ko waxee di saar boo xam ne dafa ñëw ngir dàq lépp luy lëndëm ci biir société l'islam ca bokk na mbokk lu lëndëm ay góor ak jigéen di am relation ci loo xam ni ndigalu yàlla amu ca njaaloo fu mu tasaaroo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni yàlla dana leen di nattoo feebar yu seen maam ya xamul woon coronavirus bi yàlla xam luy sababam waaye mën na am góor jigéen yu bon yu xasaw yooyu ñoo ko waral ak caga ji nga xam ne ñoo ànd ak góor ñu bon ñay tasaare njaaloo ala kulli xaal islam jël la ñuy tudde ay garde fou yoo xam ne mooy tax ba njaaloo du am sant nañu nañuy fegu sant jigéen ñi ñu muur seen awra sant góor ak jigéen nañuy téye seeni bët kër jaamur bu fekkee dugg lu dul da ngaa yéglu ila axiri ila axiri amma tey suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni nañ fexe ba société l'islam képp koo xam ne nii dafa nekk célibataire ngallawaay may leen ko soxnawaay bu dee góor a bu dee jigéen fexe leen ngeen takk ko waay ca loolu mbokk da ngay gis ne ci jaamu yàlla yi gën a kawe la bokk nga dugg ci sëy imma nga may ku góor soxna jublu ca rek jaamu yàlla wala takk benn soxna dara taxul nga takk ko lu dul jublu ca jaamu yàlla lii dañuy gis société l'islam bi mu yàqoogul woon néew na ci saxaaba yi ku ci amul woon ñeenti soxna ndax dañ daan dem géeri lu bari ci ñoom dee fa njaboot gañ bàyyi ñeneen ñi ñoo ñëw jël ko kon loolu lañu suñu borom bi wax mu ne xatta jaam yi nekk ci biir société l'islam di góor wala jigéen képp kuñ ca xam baax na nañ fexe ba dugal ko ci a la nga xamee ne muy ab sëy suñu borom subhanahu wa taala nag ne su dee ne dañoo doon ñu ñàkk day yàlla ci ay ngëneelam yu yaatu ak xam-xamam bu matale dana leen may ak woom la ci sëy googe looloo tax mu ñëw ci xadis iltamisul ghina fi nikah ay waay di leen sakku ak woom le ci dugg ci ay sëy ba omar ibnul xataab daan wax naan ajaban mimman la yatlubul xinaa fi nikah yéeme ñi day ku dul ut ak koomle ca mooy am ci ab sëy gannaaw bi suñu borom digée ne su ngeen sëyee nekk ay faqir danaa leen may ci samay ngëneel ca loolu itamit mbokk benn constat la boo xam ni tey jii ndakaaru moom borom ñeenti jabar dañ koy wàññi waaye demal àll ba nga xool kër yi nga xam ni sëñ caam fexe na ba takk ñeenti soxna da ngay gis ni waajee ak benn soxnaam jamais au grand jamais sëñ caam du dem mukk fëgg ko di ko leb dépense toujours borom benn bi moo ñëw lépp borom ñeenti bi kër ga tey dañoo fande jamais mu dal kër goo xam ne nii ñeenti soxna ak njaboot a nga fay yeewoo ñu ne tey dañoo fande wala dañoo diñe déedéet borom benn jabar ba rek lay ëpp dal même boo ñëwoon tey jii nga xool ci service yu bari nga dem xool les mariés et les célibataires ñoo yem même salaire ku nekk ci ñoom mi ngi fayeeku masalan deux cent mille waaye nga xool seen comportement marié bi deux cent mille am bi dana ci korkoraaram digganteem ak soxna si denc ci ba man cee am sax lu mu ah lijjanti ay kër mais jamais célibataire bi dab ko wala mu koy raw loolu kon mbokk benn réalité la boo xam ni ni ko yàlla digge ci alquran noonu lañ ko gisee kon ngalawaay ku yàlla may kàttan ci nga denc ngalawaay dencal ku yàlla may nga gis ku baax koo mën a may sa doom ngalla way may ko ko bépp jigéen boo xam ne fegu na baax a ngi ci moom ngalla way takk leen ko ci yàlla tax ndax sëy bi ngay sëy ak moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sarax la nee na kenn ci yéen ci cir ba muy ànd ak soxna sarax la mayu mu yàlla yu ne bànneex nu muy ànd ak sarax mu ne bu doon da koo def fu xaram nu muy mel ñu ne ko loolu bàkkaar la mu ne naka noonu loolu it sarax la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amoon nañu fi kenn ku jaaroon ci suñu réew muy Mamadou Dia yal na yàlla jéggal ko yërëm ko bokk na loo xam ne nii sunu bàyyi nettali nañ ko ci ci moom mooy bi ñu demee ba ak caga commencé tasaaroo ci ndakaaru tubaab bi indil ñu ko waaye mbokk wallahi maa ngi leen di waatal ne tubaab bi moo ñu indil ak cagatu na am jigéen buy dox tànku caaxaan musi fee jóg waaye nag gàddu sa sir guddi ngay wundilu ci mbedd yi ana góor gu muy sëyal loolu mbokk tubaab yi ñu ñu ko fi indil ba mu demee ba commencé ca la def ramas ñoom ñëpp mu ramas leen kuñ ci laaj lu tax ngay def lii ah ñàkk jëkkër rek ñàkk jëkkër dong nga ma ci yóbbee te demal tey polyclinique nga laaj man gis naa ñu fa dem def ay ay enquête mais quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñoom li ñu lay wax mooy suñu amoon jëkkër bu leen fat ñu bàyyi lii ñàkk jëkkër mu ne waaw baax na ñu daal di def benn annonce ne hee caamen yéeg njaaye néeg soween yi ku bëgg soxna na ñëw ku ñëw am na ay fu ñu leen dugal seeni yeel rek la ñuy wone yow yaay ñëw xool yeel bu la neex nga ne nañ ma xoolal kii su ko defee ñu génne leen boole leen ngeen waxtaan su ngeen juboo nga yóbbu sëy yooyu am na ci ñoo xam ne seeni sët ñi ngi Dakar ba tey kon donc dañuy wone ne yàlla gërëmul ak cagatu waaye nag c'est une responsabilité boo xam ne société bi yépp responsable nañ ci mooy góor ñi bu doon te ne ku nekk la nga mënoon def nga ko kon cagatu gi mën na wàññeeku waaye nag taxul yow soxna caga nga jàpp ne kon am nga lay déedéet amoo lay ci kanamu yàlla abadan mbokk loolu passé suñu borom nag ne ñi nga xam ne amaguñu kattan ci mën a sëy yow jigéen gisoo góor gu la takk yow góor amagoo kattanu mën a takk ngal la way muñal loolu it mu lay jàngal yow célibataire bi bul jàpp naa kon góor la majeur na am naa vingt ans da ngay dem takki déedéet suñu borom dani ñi mënagul ñi amagul woom le mbokk sëy daa am minimum bu la ciy dugal xanaa da nga am néeg boo xam ne boog buñ la mayee soxna nga mën ko faa dugal xanaa da nga yaakaar indi sama soxna bus bu nekk ba mën a làmb sama poste am 1000 francs bu ma ko jox ñu dundee kon mbokk ko yonent ba loolu dañu wax ya ma'shara shabab man istataa minkum al ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bi bi sawm fa innahu lahu wija ay yéen jeunes yi ku ci mën a denc denc ñu jox la soxna nga yóbbu ut foo ko dëkkal di ko dundal loolee un minimum am nga un minimum am nga néeg am nga lal am nga lu ñuy mën a dundee par jour kenn santaloo nga nekk millionnaire loolee ku ko mën na ko def ku ko mënul nag nay woor ba ba yàlla di ko woomalal woomal googu ñaar la nga dem ba yàlla may la kattan goo ko defe wala nga daje góor gu baax mu daal di lay jël may la doom yoral la ko bu dee loolee baax na wala nga nekk ak sa baay nekk ak sa kum mën a doon koo xam ni dañ la gàddul loolu waaye ala kulli xaal moytul te bari na ñu koy gis rawatina sunu jamono yu mujj yi ci sunu ndaw ñu bari ñoo xam ne dañuy gis texte yi sunna ci duñ ko comprendre jàpp naa yonent bi alayhi salaam may na soxna ci ay dàll may na soxna ci ay jaaro bu ñuul mokk jamono yonent bi du jamono jii tey waaw tubaab bi dañ naan comparaison n'est pas raison te ji boo demoon dëkk yi mel na àll yi ay Casamance ak yooyu daanaka takk fa jabar du dara bal jabar bi sax day indi ndax ñoom ñooy liggéey ñoo lay dundal bokk loolu bokkul ak Dakar su ko defee kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wala yastafif lazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum allahu min fadli ba baa yàlla subhanahu wa taala di leen woomalal ca la nga xam ne nii moom mooy ay kattanam mu am beneen ka mooy benn waaye ngi nii doon ab jaam suñu borom ne ma malakat aymanukum ca mbokk nañu xam ne cosaanu jaam bi l'islam reconnaître woon mooy jihaat ko daan waral ñu jihaad fi sabilillah jàpp ay prisonniers indi leen def leen ay jaam jaam googu dañuy gis dem nañ ba société yi roofaloo ñoom ñépp ñu bokk ay loi am na lu ñuy tuddee organisation des nations unies état yépp seen buur yi ñu fal adhéré nañ fa lu ñuy tuddee les droits universels les droits de l'homme ca la ñu dëppoo état yépp ne lii di njaam googu dañ koy doon loo xam ne nii lu ñuy arrêté la loolu nag bokk da ngay gis ni tax na ba lu bari ci ay borom xam-xam hatta en Arabie saoudite da ngay gis seeni borom xam-xam lañ naan jaam yi ñu xamoon ci sharia nga xam ne jihaatu ko daan waral jaam yooyu amuñu ko léegi naam du tey am na ñuy fi tudde ba tey ay jaam comme ñuy tudde ay géwal ay lawbeek ay nang loolu ay tur la mais jaamu sharia bi nga xam ne boo dee dañ koy jël miraas ko am nga droit di ànd ak moom sans takk ko am nga droit am soxla yóbbu ca marché ba jaay ko loolee mbokk la la ñuy wax ci wàllu googe am ma bu doonte ni reconnaître nañ ci jamono bi muy am su jaam bi ñëwee dana dama bëgg a gore suñu borom nee na boo xamee ci moom ak mbaax te mooy wóor na li muy wax dëgg la mën na liggéeyi su boobaa su ñeente leen ak moom nga ne ko waaw boo ma joxee un million da nga gore jaam bi xëy man la dalay defal sa liggéey ba nga bëgg waaye nag temps libre yépp mu dem di liggéey di dajale di liggéey di dajale bés bu ñëwee jox la un million daal di gore kookee nga xam ne nag dafa bindante ak sangam ne daa bëgg a gore ay yéen desite jullit ñi alali yàlla jëm leen dénk jël leen ngeen jox ko ci min malillahi lizi ataakum walla waaye bàyyi leen xel loolu yow mi nga xam ne yaa ngi dix mille rek nga am xamal ne dix mille boobu moom moo ko de alali yàlla loolu jum ci dégg yow mi denc dix millions loolu lañ lay wax yow mi denc un milliard à la banque xamal ne moo moo ko alali yàlla la min maalillah heure boo ci defee lu neexul yàlla da nga dajeg yàlla la yàlla santaane ci ay zakat ak i ndimbal heure boo ko ci deful da nga dajeg yàlla ndax alali yàlla la min maalillahi lizi ataakum loolee kon di mbir boo xam ne nii dañ ciy bàyyi xel bu baax yonent bi alayhi salaam nee na ñette ngi nii day yàlla fokk mu dimbali leen kam ca jëkk a wax ki génn di jihaad fi sabilillah ñaareel ba kii nga xame ni nii dafay dem di takki soxna ngiree rek fekk boppam ba bañu dugg ci njaaloo fokk yàlla dimbali ko kii nga xam ne day bindanteeg sangam ngir bëgg a gori fokk yàlla dimbali ko ca mbokk ndimbal googu wax nañ leen la nga xam ne moo aju ca waaj ca waaji soxna ya ca it mbokk lu mel noonu fokk ñu nettali ci benn histoire ndax tubaab bi dañuy wax toujours li ñuy tuddee mooy un bon chemin vaut mieux qu'un long discours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay bu ñuy wax Julayb bi dafa ñëw Julayb doonoon koo xam ni nit ñëpp ko doy dal mi ngi noonu ñëpp dal suufantal ko ndax ni ko yàlla bindeeg yooyu mu toog lu yàgg yonent bi alayhi salaam ñu ne ko wax Julayb bi yow doo takk soxna mu ne ko yu mu yàlla yónni Madina gii ban kër laa ñemee dem di fëgg naan may leen ma soxna yonent bi alayhi salaam ne ko demal kër diw waaw demal kër diw am nañu seen benn doom bu jigéen demal nga ñaan leen ñu may la ko bi juley bi ñëwee ci ñoom daal di fëgg toog ak waa kër gi na leen day yonent bi alayhi salaam dama ne ma woon am ngeen benn doom bu jigéen su ma ñëwee ah mën nam ngeen may ma ko bi loolu amee yaay ja daal di tàcc fële kan kii juley bi bi mukk cat nañu koy may suñu doom papa ji daal di wokk ba bi ne ko ay lii yéwén daal nangam nangam waaye soxna si xale bu jigéen bi génn ci biir na ko ah waa papa xanaa déggoo li mu wax nee na yonent yàlla moo ko wax mu ñëw fii du yonent yàlla ko yónni ci man may sëyi bàyyi leen ma damay sëyi yaa ngi dégg ñu may ko jullit bi mu ànd ak moom ñu teg ca yàggul dara ñuy dem la nga xam ne nii mooy ci réseau Uhud bi ñu demee yàlla dogal fekk bi bi mu ko takkee rek yonent bi alei da koo ñaanal yal na yàlla barkeel sëy bi yal na yàlla barkeel sëy bi loolu ki nga xam ne nii moom mooy juley bi ñu dem xasat uhud gaa yi am ñu bëri ñu fa daanu gaa yi xool diw de gisuñu ko diw gisuñu ko ah yaakaar nañ daal ñi manqué ñëpp gisuñu leen yonent bi xool na waaw ana juley bi ah wax nga dëgg de ñii wër di wër ba gis ko fa mu tëdd fekk caw na ci yéeféer yi rey ci lu bari avant ñu koy rey ak njàmbarte goo xam ni amul kenn kuñ ko gisal mbokk soxna soosee ak détermination ba mu amoon ak jule bi nam deeyee ndimbal yi da doon jóge gauche droite gauche droite ba mu mujjoon nekk ci soxna yi ëpp alal ci Madina mbokk loolu du lu yàlla waxoon day loolu benn exemple rek ci exemple yi nga xam ne amoon na ci dundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ñëw na ci ñetteelu atte bi ñetteelu atte bi ci li Cheikh Ousmane jàng léegi mooy Abdullah ibnu Obay mi ngi noonu Abdullah ibnu Obay ibnu Salul loolu am na benn mbokk hafizahullah mi ngi may wax démb dafa doomam la foogal mu tudd Abdullah Abdullah ibnu Obay ibnu Salul mooy kilifa naafiq yi ci Madina moom Abdullah la tudd amma bi mu defee njombe gam defoon ba ne bu ñu demee Madina yéen kii nga xam ne moo fa gën a tedd ca jàpp ne mooy moom dana génn ko fa gën a torox ca jàpp ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laanatullahi alayhi ba wax ji senn ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam coow la histoire ba gudd na ci gàttal yonent bi mujj na ko mujj na ko bàyyi du moyu ko Abdullah moo ñëw ci moom na ko yow mi yàlla yónni kii wax ju bon jii mu def mu wax bëgguma beneen julit di ko rey may bañ ab yi ab julit ngir bi yéeféer su yee yow ñu rey ko bàyyil léegi ma rey ko yonent bi na ko déet bàyyi ko bu ko laal bàyyi ko rek bàyyi ko waaye bi armée bi ni bi si Madina moom moo daw jiitu taxaw ci buntu Madina bot ci jaasir gaa yi ñëw di dugg di ñëw di dugg di ñëw di dugg bay baayam yeeg si di Abdullah mu jël jaasi bi teg ci put gi na ko boo yëkkati say tànk may dagg sa bopp doo dugg Madina lu dul yonent bu tedd bi moo la jox ndigal yow mu torox mi ngay doog a dugg gis ngeen ca baayam la de noonu la ko téye ba yonent bi alayhi salaam ñëw na ko waaw abdoulaye baay bi na ko waaw waxal sa waa ji de nee na du ma fi dugg mu ne ko yow mu yàlla yéen boo ko joxul ndigal du dugg ca la ko jox ndigal mu doog a dugg kon ñoom ñaar ñëpp abdullah lañ tuddoon abdullah mooy julit bi abdullah baay ba mooy yéeféer ba abdullah yéeféer boobu nag nga xam ne fa wane woon na ak julit ca loolu mooy naafiq naafiq mooy yéeféer bu wane ak julit ñëw na am ay jaamam yu jigéen jaam yi da leen daan forcé dem leen ngeen jaaloo ci benn indil ko xaalis ku ci ëmb mu yokku njabootam ñu ay jaam ñoom ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yumi yàlla yónni ñun de ñu ngi njaaloo rek njaaloo gu ñu naqari ndax suñu sang moo ñu koy sant suñu borom yàlla nag daa di wàcce ay aaya daa di ne ay yéen julit daganul kenn ci julit di forcé ab jaamam pour muy njaaloo bu dee ne dafa bëgg fegu loolu la tax yàlla wax ko ça ne veut pas dire que bu bëggul fegu man ngeen ko force déedéet mooy yéen a ngi boole ñaari dili dili njaaloo bi ci boppam ak dili li ñuy tuddee forcé mi viol boo demoon tey ci dëkk tubaab ya Fatiam am na droit xëy suba dem gendarmerie wala police lu xew démb sama jëkkër daf ma violé ndax gars yi mosu leen dégg loolu sama jëkkër daf ma violé waxuma nag keneen keneen ñuy njaaloo téeméeri njaaloo yoonu kenn néew ci njaaloo leen am maa nekk viol loolu moom beneen affaire la léegi nag soxna si bëggul sëy ba pare ngeen forcé ko ci sëy def ngeen ko ñaari déli jalgati ngeen dina yàlla ji tooñ leen waaye nag yéen soxna yi ay jaam ngeen amu leen pexe kuñ ci forcé nga njaaloo yet ca amoo pexe njaalool bakkaar ba kenn du la ko bindal loolu yi suñu borom yàlla dana leen jéggal dana leen yërëm yàlla na yàlla jéggal ñu yërëm ñu mi ngi ñëw na Cheikh Ousmane
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة ناصفة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويقبض الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال
waaw barakallahu fikum suñu borom day wax ni laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat wàcce nañ jëme ci yéen ay aaya yoo xam ni yuy leeral naññ lañu wa masalan min alladina xalaw min qablikum ak misaalu ca ña wéyoon jiitu leen wa mawizatan lilmuttaqin ak ay xuppaate ñeel ñi ragal yàlla الله نور السماوات والأرض يالا موي ليرك أسماني أكسوف مثل نوره مثال ليرم غا كمشكات مشكات موي بطل لامب بي لولي في تكاو ملنا ألمنيوم أمبكو لولو موي مشكات لامب بي ci bopam li tak di fi takaw moy mishkat fiha misbah mo am ca lamp buy tak mooy fa lumière bi di soqi ko almisbahu fi zujaja lumière boobu foofu muy soq ko mi lampe bi mi ngi ci biir benn verre az zujaja verre boobi ka annaha kawkabun durriyun dafa mel ni benn biddiw boo xam ni bu leer naññ la yuqadu min shajaratin mubaraka ñoo ngi koy taale ay la koy alimenté mi ngi jóge ci garab goo xam ne gu barkeel la zaytuna muy garabug zaytun la sharqiya saxul ca côté penku ba wala garbiya saxewul côté sowu ba yakaadu zaytuha yudiu xaw na sax diwam ga di leer walaw lam tamsasu naar doonte ne ni laalu ko benn safara nuurun ala nuur muy leer gu tege ci kaw leer yahdi llahu li nuurihi man yasha yàlla mooy jubal ci leeram ku mu soob wa yadribu llahu al amsala linnas mooy dóor ay misaal ñel nit ñi wallahu bi kulli shay'in alim ca seen borom yàlla bépp mbir day mooy aji ka ko xam fi buyutin azina allahu an turfaa ci néeg yoo xam ne yàlla santaane ñu yëkkati ko wa yuzkaru wa yuzkara fiha ismuhu ñu fay tudd aw turam yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal des na fa sabbal yàlla ci néeg yooyu bil ghuduwi ca mooy njëlbeenu suba ga mi ngi noonu fa fajar di jotee jëm kaw nga xam ne muy ëmb la gën a am solo muy fajar wal asal fa takkusaan jotee jëm sowu jant ga nga xam ne muy ëmb li di takkusaan mbokk suñu borom mu ni wàcce na ay aaya yu leer yow mi fekke woon ba ñuy jàng ba ñuy dal saar bi borom bi mu ne suuratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin mubayyinat yàlla wàcce na ci aaya yu leer aaya yooyee bokk ne lii ñu jàng nii waaye it téeréem bi yàlla joxe na ci ay misaal ca bokk na ci lii dal yaay Aïcha wax naa leen ci lu jiitu ne yàgg na fee am ku gën yaay Aïcha fuuf mu yonent yàlla yuusufa jiiñ nañ ko njaaloo tëj ko ca kaso ba pendant sept ans waxoon naa leen la daloon yonent yàlla Muusa gannaaw ba koo xam ni nii borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf moog Aïcha ku ci gën doonte ne la ëpp ci ñoom dañ ne moo gën Aïcha muy Mariama yaayu Isa yahud yi bon yi lan lañ ko wax wa qawlihim ala Mariama buhtaanan azima pour ñoom dañ ne da doon jaaloo ba am Isa laanatullahi alayhim yaa ngi dégg loolee kon pour jullit ñi ba ñu dugg ci lu demee noonu mi ngi noonu masalan ñu rizaqallahu min qablikum lii ak xuppaate la maw'iza mooy loo xam ne boo ko déggee dana dox sa diggante nga cay dellu abadan ci la yàlla bëggul waaye nag ñal ñoo ciy jëriñoo suñu borom nee na mooy almuttaqin ñu ragal yàlla yàlla na yàlla boole ñu ci borom boobu nag di wax ne moom mooy nuuru samawati wal ard na am mbokk yàlla mooy leer mooy xijaab bi mu doxalee suñu digganteeg jaami leer la waaye it mooy jollil ak leer ci kaw asamaan ak suuf moo leeral biddi yi leeral jant bi leeral weer wi leeral lum mën a doon leer googee da ngay gis ne moom lay dóor misaal doonte ne leeru gi yàlla googu ñaari leer la leer gu ñuy gis ak leer gu ñuy yëg leer gi ñuy gis mooy leer gi ngeen gis nii mu jóge ci jaww ji leer gi ñuy yëg mooy téeréem bii mu wàcce muy leeral dënnu jullit ni tax suñu borom mu ne afa man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas xoolal ki nga xam ne dafa deewoon ma dekkal ko may ko leer gu muy dox ci nit ñi ndax mooy jullit fu mu dem day ànd ak ay projecteur di dem déedéet leer googu ci biir xolam la nekk borom bi ne misaalu leeram dafa mel ni benn lampe boo génnee jàkk ji xoolal poté bi la tiim da ngay gis lay gis ñetti élément mooy mishkat bi nga xam ne moo nekk ci kaw ëmb ampoule bi nga xam ne bopp moom la ñuy démonter mooy verre bi nga xam ne ca la nekk ak la nga xam ne mooy takk ci biir nga xam ne mooy misbaax bi gannaaw ba verre bi gannaaw ba la nga xam ne moo ko ëmb xatta lampe pétrole yi lu mel noonu da ciy am mi ngi noonu bu ko defee leer gi day gën a mat gën a tasaaroo waaye bu doon li takk rek lañ jël teg ko ci pote bi leer gi fii rek lay yem mais ak ampoule bi ak mishkat bi da koy gën a projeté borom bi subhanahu wa taala nee na loolu la ak leeram mel lu bari ci mufassirun yi lañ koy firee ñu ne loolu moom may mishkaat bi mooy dënnub jullit i ngi noonu lamp ba mooy leerug yàlla ga ca nekk di xam-xamu alquran li suñu borom di wax naan fi zujaaja zujaaja mooy xol ba xol booba nga xam ne mooy xolu jullit dafa sell leer léegi nag suñu borom yàlla wàcc ci leerug alquran leer googee mooy tax mu nekk nuurun ala nuur mu joxe ci misaal ci garabu zaytun xam nga ci la ñuy jëli olive bu jëkk moom lañ doon niitoo ci kër yi garab yooyee bu dee garab bi dafa meññ ci li ñuy tuddee ak tuur muy montagne tuur boo ko déggee rek muy montagne bu am garab su dee zaytun bi dafa nekk ci kaw montagne bi féetewul penk féetewul sow bu jant bi dee fenk rek mi ngi jàkkaarloog garab gi toute la journée di am leeru jant bi ba baa jant bi di sow olive boobu muy meññi diwam muy diw bi gën a sell bi gën a baax ci diw yi amma bu dee daa nekk ci suuf bu jant bi dee fenk imma mu jàkkaarloog moom mais bu demee bay so dootu ko gisati wala mu nekk côté bële bu jant bi day fenk du ko gis jamono bi muy sorog la koy gis loolu nag mu borom bi ni xaw na takk sax même bu ca leer amul loolu mbokk mooy xolum jullit jullit day yëg tawxiid bañ a bokkaale boromam du ko nangu ci xelam amma nag bu alxuraan ñëwee ba alimenté ko nag mu ne wala lii laa doon wut coono lee bari na trop mbokk tey ay tu sunu mbokk tubaab yu dugg ci lislaam yoo xam ne avant ñu dugg ci lislaam sax ay yii yëpp ay bokkaale yi mënuñu ko woon comprendre bi lislaam ñëwee nag la leen yee loolu borom bi di wax naan xaw na tàkk sans leer dal ko mooy xoolum jullit boobee waaye bu leer gi ñëwee nag di alquran mu nekk nuurun ala nuur xol bu baax bu sell ànd ak leeruk alquran nag gu koy tegtal mu lay jàngalit mbokk jullit nit ki lu xolam baax baax ci amul am xam-xamu alquran du dem du dem de fokk ñaar yi la ñuy boole xol bu baax ak leeruk alquran ki am leeruk alquran te xolum baaxul loolu mooy naafiq yi nga xam ne mën nañ laa taqril baqara ba naas mën laa naanal ay xadis waaye zéro intérêt rek lañ koy wutee nuurun ala nuur borom boobu nag ne mooy jubal ci leeram ku ko neex ci ay jaamam mbokk mi ngi noonu yàlla jëbal ku ko neex toujours buñ ko jox daan ci jox misaal suñu jataay bi yal na yàlla nangu ko yàlla barkeel ko ma gaa yi ndax xam ngeen suñ diggante yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaati siècle la quatorze siècle suñ yonente bi alayhi salaam ab naar la ñun li ëpp ci ñun xamuñu ci naar xiira wala kafira ca li ëpp ci ñun yonente bi ak alxuraan moo ñu gënal lu dul yonente bi ak alxuraan gaa yi loolu di nga ñu lu yàlla nga gis ñoo xam ne nii nag ñoo moom ñoo bokkoon juddu bokkook moom yaru dégg lang arab xam ak moom yépp yonente baag alxuraanam ju neex ja yonente baag jukkoom yi kawe ya ba pare yàlla dugalu leen ci mbir mi kon kay yahdi lahu li nurihi man yasha yàlla jubal ku ko neex noonu ngay demee tey ba dem au kofee ci adduna bi foo dem fekk fa ay nit sama benn mbokk daf ma wax lu xaw a yéeme ñoom ay matuloo la ñu dañoo demoon seen bateau accosté ci benn dëkk ci Chine ci dëkk yu sori yi ñu dégg ne fii am na jumaa ñu ne ah ñoom dañuy dem ci jumaa ji nee na ñu moog benn xarite biñ ñëwee jumaa ji ñoom rek ñu ci ñuul nee na bi ñu jullee ba pare imam bi woo leen ñu ñëw mu laaj li ngeen fu ngeen jógee ñu ne ñun jógee Afrique lañ jógee Afrique xam ngeen gars yi Sénégal fii la yem de gars yi jàpp nañ ne yàlla li mu am Sénégal bu ko xeebee perte waaye boo génnee fii rek nit ñi xamuñu luy Sénégal. Afrique lañ jóge imam bi ne waa mbooloo mi gis ngeen xéewlu yàlla de ah islam dem na ba yegg ci Afrique ci ñu ñuul ñi je yaa ngi dégg loolu la xoolal mbokk jullit rek te yow boo gisoon ab chinois bu taxaw ji nodd di jàngal xuraan ni mu lay yéeme kon yàlla mooy jubal ci leeram ku ko soob yàlla na yàlla jubal ñu jubal suñu njaboot borom boobu nag mu ne maa ngi dóoral misaal ñel nit ñi te xam leen ne yàlla lépp mooy aji ka nga xam jalla wa ala gaa yi leer gaangoo jullit baa nga ne xolam bu leer ba ak alxuraan ju àndal waaw fu ñu koy fekk ji fu ñu koy fekk ji tey dem nga jàkk ji dem nga kër Bilal Thiam di ko seet ñëw ñu ne ah moom kat daa génn nga xool sa montre muy cinq heures fooy jubal jàkk ja ah mi nga noonu jàkk ja rek ngay mën a jubal te mbokk jullit mi nga noonu leeram googu fii buy wuutin jàkk ja moom mooy dem lu waayam jàkka rek la jullit di am cinq rendez-vous par jour am déet cinq rendez-vous par jour jàkka ja da nga koy am jàkka yooyu nag suñu borom yàlla nee na moom mooy ki joxe ndigal ñu yëkkati ko yëkkati ko ci tabax ko yëkkati ko ci teral ko mbokk jàkk dañ ko war a jox worma di ko laabal yal na yàlla fay ñi laabal jàkka ji di ko taxawu góorub jigéen waaw noonu ñu santaane ñu koy laabal yàlla santoon ko ibrahima ak ismail bakkaar bu tol noonu it noonu la toll ci ñi koy salteel ewaay yow mbokk mii dugg ci douche yi boo génnee ci douche yi xoolal sa tànk yi paccax paccax nga nar koo dugal ci mokkat yi xoolal loolu yow mi yor say mouchoir di sànni yow mi nga xam ne yaa yor benn comportement bu mën a doon xamal ni fii néegu bi yàlla la dañ laa sant nga laabal ko sant ñu ne nga tilimal ko waay an turfaa ñu laabal ko turfaa mooy bépp waxi caaxaan bokk jàkk du place am bépp waxi caaxaan jàkk du place am képp ku fi ñëw di jaay yonent bi alayhi salaam dana yàlla bu yàlla barkeel njaay mi mu amit loo xam ne nii lu doy waar la donte ne c'est difficile pour expliquer ko des sénégalais ak seen sentiment ñii ñëw taxaw fii di ñaan ay ndimbal loolu l'islam nanguwut loolu islam nanguwut loolu islam xamut loolu waa ji taxaw ci bu fii ci jàkk ji nit ñi tasbix billahi wallahi taala yi ñetti fan a ngi ci tàkkul sama kër billahi wallahi taala yi sama doom ma nga opération 500 mille loolee mbokk warul ci jàkk te laaj leen mag ñi yéen ndaw ñi bu ngeen xamul dellu leen dans les années 70 amul woon ci jàkkee Dakar yi amul woon ci jàkkee Dakar yi jàkk dañ ko war a respecté yëkkati ko en turfaa borom boobu it subhanahu wa taala ni gannaaw ba ñu fay tudd aw turam ci subaak ngoon jàkka kenn du too woo yàlla di ko boole keneen ku dul yàlla yàlla kese wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada lii mooy la nga xam ne nii moo taxoon mbokk ñu daal di tabax lii nga xam ne moom mooy néegi yàlla bi su ko defee suñu borom yàlla mi ngi ñuy xamal ñay dëkkee jàkka lan mooy nekkee seen melokaan insha allah bu ñu fi dajee suba wala bu ñu fi dajee suba ak jàmm parce que dama lépp ñaari question ne bu doon bu loolu damay lépp ñetteel ñetteel bi sax waaye ala kulli xaal ñu yem foofu bu ñu fi dajee suba jéem a xool mbooloo yooyu nga xam ne nii ñooy dëkk jàkka lan mooy seen melokaan mi ngi noonu kon mbokk julit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain insha allah comme dañoo defoon ñaari fan yi paas yëpp amuñu benn laaj ñu bëggoon bàyyi cinq minutes ci koo xam ne am na lu muy laaj insha allah bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah iyaakum iyaakum barakallah hadisu zulyudayni rasul sallallahu alayhi wasallam dafa julli ñaari rakka ci tisbar wala takusan sëlmal jóg taxaw lenn ci gaa yi yàkkam bi sax ne eh wàññi nañ julli dem zulyudayni na ko yu mu yàlla yónni ndax da ngaa juum wala boog yàlla moo wàññi julli gi mu ne ko déedéet ñaar yooyu dara amu ci mu ne ko ah kay am na bu ci am gis ngeen yonent bi ne waaw ndax li mu wax dëgg la ki doon nettali hadis yi nee na Aboubacar yi nga toog Omar mi nga toog ra wax na dëgg kay yonent bi alayhi salaam kabbaraat indi yeneen ñaari rakka daal di sëlmal gannaaw ba sujud ñaari sujud doog a sëlmal kon julli gaa ngi noonu julli na ko normal lam ca yokk mooy sëlmal gëm sëlmal ci diggante bi loolu nga xam ne kon imam bu ko defee day mottali rek même bu imam jógoon sax comme ni yonent bi jógi day mottali rek gannaaw bi mu sëlmal ba'da salaam wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw dafa julli ñaari rakka war a toog toogul mu jóg continuer ak julleem ba ca fin ba lay fàttaliku ne toogu ma woon ci diggante bi kooku day continuer julleem rek su demee taaye ba dara desul lu dul sëlmal mu daal di sujud ñaari sujud doog a sëlmal loolu la ñu tuddee qabla salaam qabla salaam mooy sujud avant ngay sëlmal ba'da salaam bi mbokk bi laaj mooy sujud après ba nga sëlmalee ba pare mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah naam waaw ala kulli xaal kooku ko wax dafa xamul dafa laaj nisaabu zakat ñu ne ko 300000 ca égal 85 grammes d'or déedéet 300000 yooyu ñoo ngi ko gëstoo ci xaalis pur xaalis pur bi ñuy takk ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamonoom dañ doon génne zakat ci or ak xaalis jamono jooju soo amee fukki dërëm ci or ci xaalis da nga mën a am dërëmub xaalis ay or bi da doon daf def dix fois le gramme ci en argent yonent bi alayhi salaam nag ne ki am deux cent grammes kon ci xaalis na génne zakat ki am lii vingt grammes quatre vingt ni ñu koy waxee quatre waxuma waxuma gramme de maa ngi wax dirham dafa am dirham deux cent dirham te loolu boo ko posé nekk six cent grammes mu ne nag ki nga xam ne dafa am vingt dinars deux cent dirham vingt dinar ci ci or na génne zakat mooy quatre vingt cinq grammes boo xoolee quatre vingt cinq grammes en or loolee ci or bi nga xam ne nii liggéeyee guñ ko borom xam-xam yi ñu ngi koy tënk ci ay huit cent mille bu dee bu ñuy liggéey bee moom comme ni nga waxee day dem presque deux millions am maa nag bu dee dañ ko xool ci xaalis dañuy gis ne kon ki am six cent grammes ci xaalis al yàlla mi ngi dogal ñu ngi fi nekk ak secrétaire général fonds sénégalais de la zakat sunu mbokk bi Moussa Ndiaye yàlla na yàlla dolli ko yiw gëstu yooyu ñoom ñoo ñu ko santoon ñu daje ci ab yendu san am na ci kenn ku bokkoon ci ñun mi Mouhamad Kayta rahimahullah moom mi ngi mujj na faatu ala kulli xaal ña fa daje woon dañoo mujj gis ne tey fii ñu toll ci àdduna bi lu bëri ci borom xam-xam yi li ñuy ubbee mooy jamono yonent bi dañu génne zakat or ak xaalis or bi tey cher na cher boo xam ne bu doon dañ ci base zakat lu néew ci nit ñi ñoo koy génne mais buñ ko delloo ci xaalis gis nañ ne xaalis bi ça tourne autour de 500 francs le gramme 500 francs fois 600 si muy 600 grammes yi ça fait 300000 ñu ne kon ki am 300000 war naa mën a génne zakat ñaari intérêt am ci intérêt bu njëkk bi dana am jullit ñu bari génne zakat te bu doon ci or lañ ko defee mën nañ dund ba dee duñ génne zakat ñaare bi tamit mu nekk intérêt pour les fuqara yaa ngi dégg loolu moo tax ñu wax loolu kon boo déggee 300000 dañ koo base ci zakatu xaalis bi ñuy takk ci loxo amma nag boo déggee ay millions xamal ne dañ koo basé ci 85 grammes d'or mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain